law ci njàngum nasaraan moo tolloog ardoise ñu la koy jox di la ci bindal ay mbir ngay yëkkati diwan ki lay jàngal di wàccee ko def yëf ba mën a liir door na nga dugg ci livre yeeg ñoom seen yooyu loolu tam aw jaarim la woon ci wàllu jàng su boobaa koo xam ne kii yoruloo njàpp sañuloo laal alliway alquran al azim alliwa ji ñu bind alquran ala gayril wudu moo tax suñu sëriñ ba ñu doon jàngal alquran di alxaaji màggat jeey ca kub-kub yal na yàlla yokk ko wér gi yaram fi ñu daan raxase daf ñu daan moytuloo ñu fay jaar di fa jog gi waaye daf ñu daan moytuloo ñu fay fo mbaa ñuy fab suñuy dàll di fa teg loola ngir màggale ko alquranul karim yal na ko alquranul fay wala yal na yàlla fay ko ci barkeb quran kon alquran deesu ko laal deesu laal alli wëjë ala gayril wudui ci lu dul njàpp illa lu dut li mutaallimin ci kuy jàng fii ca moom ki yor alliwaam nag di ca jàng moom sañ naa laal alliwaam ndax loolu yi tabarkàlla olof naan kuy xalam di ca jaayu loolu mooy am yow mi jàngul ci alxuraan jàngoo ci alliwa yow moom bu jotee yoon nekk lañ cay mayee kas néew ka cay jàng rek la jàngul nag yoonam nekku ci moo tax illa li mutaallimin fiihi kay jàng ca alliwa ja kooka mën naa yor alliwaam ci lu dul njàpp la gën nag mooy ñu jàngal ko ne nay jàpp ndax mu jànge ci màggaayu alquran mu jànge ci màggaayu alliwa ji def alquran loola jàngalaale ko gaa yi nga xam ne ñoo yor alquran tabarkalla xamalatul quran yi fi zillillahi yowma la zilla illa zilluhu tabarkalla moo tax ki kiy jàng am sañ-sañ boobu aw muallimin wala jàngalekat yu saxixu bi ko koy toppal kooku tam sañ naa laal muallim bi mu di sëriñ bi koy jàngal alquran yu saxihuhu di ko toppal li ñu bind wala di ko bindal li muy bind kooka it sañ naa laal alliway alquran kooka it sañ naa laal alliway alquran ndax boo bindaa sa bind ba noppi da ngay ñëw jox ko sa sëriñ mu daal di fab bindukaayam moom it tàmbalee ca bopp fa ngay bind di wàcc ci jëm ci suuf di xool ndax am na maas goo maas nuñ ko warta maase ndax am na taara joo bàyyi ndax am na tikkant goo bàyyi mooy hamza ndax ndax fàtte ngaa soqi baat bi ndax fàtte nga koo madda ndax fàtte nga koo sàdd yooyu yëpp la sëriñ bi daan xool di ko tasxiix di ko defaraat ba loo ci jom mu dindi ko ndax siin gii nga tooyal daa war a wow ndax siin gii nga wowal daa war a tooy noonu nga xam ne moom lañu daan def mooy li ñuy def tey bu ñu dictee ba noppi jàngalekat bi seet li nga xam ne mooy fóot yi dindi leen note leen loolu tam dafa amoon ci daara ji tabarkalla amin wu am solo bi la masee seetal sa àlliwa nag ba mu jub nga xam ne li nga bind baax na ñu xool nag la nga xam ne moom lañ tuddee ay boole tey nekk ci biir sa bind bi xool fiimaa yi ne la fii day am na ci alxuraan nangam yoon fiimaa bañ laale dëkk buñ dut laale doom du fa jooy daane la fiimaa fiimaa bañ laale yëxun fukk la ak benn daan lay wax nag barab bi ñu nekk ma nga ca barab sàngam ma nga ca barab sàngam ba fooy bind ci sa ka téere ci sa alliwa ji rek fiimaa ji ngay bind boo téenee gis ne nekkul ca saar sàngam rek da ngay daal di xam ne kon fii maa ji dafa war a taqaloo te fii ak maa ji bu taqalooxee da nga faa war def yaa yaa jooju mooy doom ji faa gi mooy jëkkër ji miim gi mooy jabar ji ngeen baal ma ci ñaari baat yooyu waaye nun lañ ko daan jàngalee ndax mu leer la buñ la waxee fii maa bañ laale dëkk buñ dut laalee doom du fa jooy mooy fii maa ji su laalantewul doo fa bind ñaari tomb ji def yaa waaye suñ laalantee rek leen di bindal ñaari doom yoo xam ne yi mooy tomb ya nga xam ne mooy yaaja tabarkalla léeg-léegi daanañ la bindal agsi ci ñittu wala jinnu wala aladu wala jaddu ñu ne la gàttus kumba kumutee sàmm dalaa fekkoon jubadi am na yeneen baat yu mu ko doon waxee waaye yii moo gën a jege ci déglu ko ci lu mel ni rajo ñu ne la aladoo nga laal mittoo nga mareem jaddoo nga jinni sakkoo nga baladi baat yu gàtt yooyu lañ lay wax ne ñoom de gàttoon nañu seen siir gàtt jigéen lañ ñu seen siir gàttoon waaye taxutoon ñu lamb muy njàngale mu am solo mu ne ci biir moo di sër bu gàtt bu taxee jigéen di joxe lam yor mu ne juba di dong la waaye ñii day ñetti baat yi day seeni sër gàtt na waaye fa ñu nekk rek lañ nekk boo demee boo xasee jóge laan du doog gis mukk loolu dangaa jëkk mareem soo jógee mareem bala nga ko gisati dem jinne boo jógee jinne bala nga ko gisati dem baladi ñoom foofu te kat ku leen soxla yaay dem fekk leen waaye ñoom duñ fekk kenn tabarkalla maanaam loolu jàngalekat bi ko daan defal nag ci muy jàngal dañ ko daan may moom mu sañ a laal alliwoy alquran wasabiyu ndaw wasabiyu xale bu ndaw fii massil qurani ci laal kaamil wala laal aliwa kalkabiri niñ ko teree mag lañ ko ko teree wasabiyu xale fii massil quraani ci laal kaamil kal kabiiri niñ ko teree mag lañ ko ko teree waaw xale bu nekk laal kaamil laal aliwa niñ ko teree mag lañ ko ko teree kon ñu bàyyi xale ci téere yi kaamil yee xale yi ndax xale ñaare moom xamu ci dara mën naa gis kaamil gàddu mën na ko ŋàbb ba fu ko neex nangam nangam ngoog wal ismu bàkkaar bay juddoo ca laal kaamil ba wala bàkkaar bay julloo juddoo ca laal alli waja bàkkaar boobu ala munawilihi ma ngay wàcc ca ka ko jox kaamil ba wala ka ko jox alli waja yow mi jël àlliwa jox ko xale bu jàngut wala nga jël kaamil jox ko xale bu jàngut bakkaar ba ala munawilihi lahu kaka ko jox moo ko moo koy gàddu wal ismu bakkaar ba ala munawilihi day wàcc ca ka joxe lahu xale ba ca kaamil boobee wala àlliwa ja kon ku jox xale àlliwa yaa yor bakkaaru ba waroon a juddoo ci moom bu nekkoon mag mu laal kaamil gis nga kon ndekete doomu aadama dana jël mbir bakkaar juddoo ca mu gàddu bakkaar boobee ndax lan ndax yaa ko ca dugal xale bi daa waroon a xam ne kaamil de su ko laal fu la neex laalee su ko defee ñu man di ko ko tere waaye bàyyi ko di yëkkati di ko jox ñu bàyyi ci xel ku amul njàppit buñ ko yëkkati di ko jox ñoo ñëpp kenn ku nekk ñu tere la ko nga xam ne doo ko ñemee laal wa man salla bi gayri wuduin ku julli ci lu dul njàpp wa man salla képp ku julli bi gayri wuduin ci lu dul njàpp waa ji dafa toogum ñàgg rek ñuy julli rek mu jóg rek kàbbar benn njàppam daa toj mu rus a jàppiwaat loolu dana am mbooloo mu toog bari lool toog waxtu yàgg lool te kenn jàppaati wut waaw mbooloo mu toog lu yàgg lool te mbooloo ma bari lool ñu jóg julli te kenn jàppaati wut mën naa am kenn njàppam toj ca mën naa am am na ko ci njàppam toj moo tax gaa yu baax dañoo mës a toog ba mu yàgg rek am lu xeeñ ci barab bi te loola su masaa xeeñ njàpp day yàqu ñoom ñëpp ñu xoolante xoolante mënuñoo xam kum doon ñu daal di ne nan jàppiwaat ñun ñëpp ndax njàpp toj na fi te xamuñu kum doon te bind ba la weesu dégg ngeen ci ñu naan isaa taayanati najasatu xusila sawbu xusila mahalluha bu sobe leeree dañuy fóot fi mu nekk bu leerut xanaa jaxasoo ñu fóot yére bi yépp tabarkalla ñu baax ñu ñu daal doxal masala moomu ba ñu ko waxee rek jenn waay ne leen toog leen su ma jàppee yéen ñëpp da ngeen am jàpp ñu daal di yëg ne kon moom moom la njàppam tojoon waaye falayam moom it tabarkalla amutug rëy amutug rëy xam na ne yàlla subhaanahu wa taala ragal ko moo gën fuuf ragal nit ñi ragal yàlla tax mu ne man mii la sama njàpp toj bàyyi leen ma ma jàppi waaye bu doon tey jii loolu dina jafe lool tabarkalla xam nga masala mi ñuy tuddee masala mu wuutal ci julli dina ñëw ca kanama kanam ca buntu sahu julli ba mu yàgg sa njàpp toj ci biir julli gi te nga nekk jiite islaam ne la ñoddil kenn te génn julli gi masala moomu léeg-léeg nga dox fukki at ak juróom ñaar fukki at dox gis dox gis fenn tabarkalla du ci julli jàkka yi du ci julli jumaa yi du ci julli kër yi moom daal far masala mu day mel ni dafa far amut ah tabarkalla loola daal kum dal ku nekk nga wéyaale ko wa man salla bi xayri wudu aamidan te tey ko fa huwa kaafirun moom ab yéefar la weddi na yàlla waaw ndax ragalatul yàlla ki julli ba njàppam toj ci biir julli gi bu fekkee dañ ko jiite day mën naa bokk ci julli gi ba julli ga jeex mu dem jàppi julli waaye bu fekkee moom moo jiite dafa war a génn ci julli ga wuutal kenn balaa génn kooka mottali julli ga lu ko mooy rek ah ak ragal yàlla dafay daal di jóge naka noonu koo xam ne kii da nga toog ci mbooloo ba mu yàgg rek ñu ne ñu julliwaay waxtu wi jot na ñépp jóg rek nga daal di jóg te mu leer la ne yow amuloo njàpp ah foofa de moom it ak ragal yàlla daal na fay tuxoo wa man salla képp ku julli bi gayri wuduin ci lu dul njàpp aamidan te tey ko fa huwa kooku kaafirun ku weddi yàlla la ndax yàlla moo ne woon isaa qumtum su ngeen jógatee ila salaati jëm ci julli te amul leen njàpp faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ba aaya jeex su ngeen jógatee jëm ci julli te amu leen njàpp na ngeen sëlmu ragg seeni loxo ragg masaa seen bopp tabarkàlla ragg seeni tànk ba ca boolee dala ko yaag fawur yaag ñoom seen yooyu mu nekk juróom-ñaari farata ginnaaw yàlla moo ne woon ku jóg di julli ji te amoo njàpp na nga jàpp yow nga jóg julli ji te jàppuloo kon mooy weddi nga loolu yàlla wax tabaraka taala ci alxuraan ne ko man de danaa julli te du ma jàpp te loolu ëpp naa wax suñu borom subhanahu wa taala moo tax borom téere bi mu ne wala iyaasu billahi ñoo ngi làqu ci yàlla ak kéefër mu ne yàlla nañu yàlla musal ci ak kéefër wala iyaasu billahi kon li bind bi di jàngale tey mu di abdurahman al akhdari ci téeréem boobu nga xam ne tabarakallahu ñu mbokk mi al ustaas alim Géey ca cene ba day wax ne téere bu jan la te tond waaye téere bu tond la te jan téere bu tuuti la te rëy téere bu rëy la te tuuti tabarkàlla ndax dafa xam téere bi kon balaa ñuy ñëw ci bind bi nañu teg suñu baaraam ñu ñëw ci wàllu sangu sangu dafa wuute ak raggu raggu mooy da ngay jël ndox jël saabu jël njàmpe dem ca wana wa xëbal saabu bi def ci saw yaram ba tilim bi set loolu mooy raggu sangu nag da ngay jël ndox dem ca wana wa xubbiku am noo ko jaare tiirib dana ko jàngale ci kanam loola mooy sangu kon sangu ak raggu ñaari mbir la yoo xam ne yii olof day wax sangu di wax raggu boo leen dee boole du nekk benn ndax kee aada la kii ibaada la islaam nag moo waral sangu mboolem yaram ci ndox ci góor ak ci jigéen bu fekkee jote am na seen diggante ñoom ñaar góor gu joteeg jigéen mbaa jigéen gu joteeg góor suñu noppee góor ga war naa sangu jigéen ja war naa sangu wala jotewuñu sax waaye géwant dafa am ci moom ku góor ki géwant am lu génn ci moom wala ku jigéen ki géwant am lu génn ci moom ñoom ñaarit ku ci yeewu war ngaa sangu alxuraan daf ni wa in kuntum junuban fattaharu ci suuratu maida aaya juróom benn ku ci yor janaba ci yéen na sangu wala su ngeen yoree janaba na ngeen sangu suuratu almaida aayab juróom benneel janaba jooju nag dana ko jàngale moom borom téere bi al axdari kon sangu moomu benn jëf la boo xam ne bii bu am njariñ la ci góor waaye bu am njariñ la ci jigéen ñoom ñaar ñëpp ndax boo demee ci wàllu médecine ñi nga xam ne ñooy toppatoo mbirum paj kër docteur ak mbiri xam-xami yaram ak mbiri xam-xami deret mbiri xam-xami sidit mbiri xam-xami yi aju ci doomu aadama yépp ñoom ci wàllu médecine ak itam ci wàllu pratique dañuy wax ne in al jism al insani yafqudu shay'an min xayawiyatihi wa quwatihi ba'da al intihaayi min al ittisaal al jinsi wa laysa min shay'in yu'iidu ilayhi tilka al quwa al xayawiya misla an yuxsala al jismu kullu wa yudlaku jus'an jus'an bil maa'i nadiif médecins yi nee nañu doomu aadama bu fekkee ne jote dafa am diggante moom ak soxnaam wala diggante soxna ak jëkkëram dafa am lu ñuy ñàkk ci ak cawarte boo xam ne dara mënu koo delloo si lu dul ndox wala ni ko ndox mënee delloo si leneen mënu koo delloo see noonu lu am solo la moo tax ki nga xam ne bu loolu amee da koy fonk di sangu suy màggat soo ko dee xool bokkut ak ki nga xam ne du jëfandikoo sangu suy màggat boo koy xool ñàkk sangu googu jote ba noppi bañ a sangu dem noonu loolu mën naa jur ci di nit ay mbir yoo xam ne yu kéemtaane la ay sidit yu fasu ay xel mu tayal cerveau yu lemu xalaat yu gàtt loo yor mu daanu looy seeti bañ ko faa fekk dugg ci oto mu këpp mbaa mu dal feneen wala nga di safoor mbëkk leneen tabarkalla réer léegi xaalis léeg-léeg ñu tafu la yooyu yëpp da ciy am ndekete yoo dafa am lu xew ginnaaw bi loolu xewee la ko war a faxas muy wàllu cangu ga amu ca kon xaywe boobu li koy delloo si médecine wax na ko te it islam moom wax ko ci alquran boobu ak léegi junni at la ak ñeenti téeméer ak nangam moo tax borom téere bi ñëw di ñu jàngal lan mooy wàllu woowu ñu jël suñu téere ñu jéem ko xool daf ne yajibu dana war alxuslu sangu kon bul wax alxuslu raggu da ngay wax alxuslu sangu ndax ibaada la du aada alxuslu sangu muy sangu farata bu ne yajibu mooy sangu farata am na yeneen sangu yoo xam ne du ñu farata sangu sunna lañ leen di tuddee lu mel ni sangum ajjuma bu ajjuma jotee bala ngaa dem jàkka ja sangu boobu ngay sangu ni ñuy sangoo farata lañ koy sangoo waaye moom du sangum farata moom du sangum farata moo tax njàppam la cay ànd dañ koy yéene yéene njàppum farata lu ko mooy day manqué ndax cangaay la cangul sunna la bu ñaaral ba ci ya ñuy sopp ci sangu nga xam ne sangum sunna rek la moo di sangu ba ñuy sangu ngir armal bu ñetteel ba sangu ngir dugg màkka bu ñeenteel ba sangu ngir ku sang néew ku sang néew sangu kuy bëgg dugg màkk sangu kuy bëgg armal sangu ba ajjumaa nga sangu yooyu cangaay dañ leen a sopp ci nit ki mu koy def moo tax fii mu ne yajibu bëgg indi yi nga xam ne day waral sangu waaw mu ne sangu day war min talaasati asiya ci ñetti mbir léeg-léeg nag nga dem ci téere fiqi ñu def ko ñeent waaye bañ koy defal mooy duxulu fil islaam lañ cay boole ñoom ku dugg ci lislaam ak al mawtu muy ku dee waaye al imaamu Malik ci dégginu fi xam soo yëree bu baax te settantal ko da nga xam lu tax mu génne adduxulu fil islaam ak almawtu ndax ki dee sangu miñ koy sang ndax moom farata la ci moom ci boppam wala ci ñi koy sang la wala moom da koy yéene mu wér ci moom wala dañ ko koy yéeneel yooyee la ñuy gëstu ba mu xóot door a xam lu tax al imaamu Malik bàyyi fa loolee limaaliwu ko fii beneen bi ci dugg ci lislaam tabarkàlla nga gëstu ko dina ci am solo kon mu ne moom yajibu dana war alxuslu sangu min talaasati asiya ci ñetti mbir nga ne ko ñetti mbir yooyu man ak man la mu ne aljanaabatu janaba dana waral sangu farata wal xaydi ak mbërëg mu jeex mu di règle jigéen bu jeex wan nifaas yi ak gasin incha allah ma nga ca kanam dana dikk ci loolu ñuy tuddee nifaas ca faslu fukk ak benn incha allah subhanahu wa taala dina indi li ñuy tuddee alxayd ca faslu fukkeel incha allah su boobaa dina la xamal bu leer a leer lan mooy xayd te mooy règle bu jigéen di gis weer wu jot lan mooy nifaas te mooy deret ji jigéen di gis bu fekkee am na doom ñaar yooyu dina ko leeral ca faslu fukkeel ak faslu fukkeel ak benn te leeral ko it leeral boo xam ne bii tabaarakallahu leeral bu am solo la na ngeen ci bàyyi xel ñu ñaan yàlla ñu àgg ca ci alhamdulilahi rabbil alamin kon yajibu dana war alxuslu sangu min thalathati asiya ci ñetti mbir aljanaabati janaba da koy waral wal xaydi ak jigéen ju regalam jeex wal nifaas yi ak jigéen ju gësinam jeex yooyu ñett dañu koy waral farata lañu dana la leeralal lan mooy janaba ci bindu tay bi incha allah bàyyil la xayd ak nifaas waaye ñu bàyyi xel fii xayd muy ragal ci jigéen léeg-léeg mu jeex mu bañ a sangu ndax wax yi lay wax naan da ngay dolli ñetti fan loolu bu leerut loolu bu leerut ku sa ragal jeex rek nga toog ñetti fan ñetti fan yooyu nga leb fi fukki julli ak juróom te benn julli boo leb bu nekk rek yaa ngay bëgg a dugg ci allazina hum an salatihim saahuun ja suratu almaauna doon wax naka noonu nifaas jigéen léeg-léeg day am doom tabaarakallahu deratam jeex ci moom mu ne daarusa julli daarusa julli ndax jàpp na ne su jullee rek ñu tàmbali naa ndax ni ko olof yi di waxee ku julli rek ñu defee ne moom fi mu nekk tàmbali naa jege borom këram ñoom loolu la ñuy xalaat moo tax ngir bañ ñu reetaan leen ci loolu mbaa ñu leen koy jàppee mooy tax léeg-léeg gis ku deretam jeex mu toog rek nag téen fas yéene wuti ñaari weer tabarakallaa di lépp ay julli rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey nampal sa doom ji sa ñàkk julli googu yi di nampal sa doom ji sa ñàkk julli googu yi moo tax su màggee loo ko sant mu lank ndax yàlla dalaa sant nga lank kuy gàntul yàlla koo sant mu gàntu waaw kuy gàntul yàlla koo sant mu gàntu bari na ci gone yi ñu dëgër bopp lool naqari sant lool lu tax seen yaay yàllaa leen di sant ñuy lank moo tax buñ leen santee ñu lank waaw kamaatu diinu tuddaanu li ngay leble lañ lay fay benn waaye daa amoon gëléemam daal di koy sëf ay saako juróom-ñetti saako daal di koy dóor giléem gi lank mu dóor giléem gi lank mu jël jët wu rëy rëy rëy dóor ko giléem gi giléem gi ne ko dama sa borom dalaa gën a muñ rek ndax juróomi fan a ngi nii julli woo nga teg may saako bëgg mu jóg jóg laa defut mu door a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah man de sama giléem gi nangam nangam waxtaan ca ak moom mu door a ne ko nag yow la loolu dafa am solo lool léeg-léeg nit takk montor montor ba taxaw nga yóbbu ko ci horloger defarlu ko montor ba lank horloger ba bàyyi ko fa demal ci liggéeykati montor yi lañ fa jël ci montor kenn xamul nu mu toll lu tax montor ya bañ mooy seen boromu duxut ku sa ku duxut nag bëgg sa montor dox sa montor ne la dox laa defut fii lay toog moo tax horloger yi montor yaa ngi fa bëri lool tabarkàlla te dara sikku ci nag ndax weñ ca nekkoon ma nga ca igiw yaa ngi ca ak lépp waaye montor ba lank lu tax boromu duxut ku dëkk ci nelaw sa montor nelaw tabarkàlla kon xaydu boobu ak nifaas bu jeexee ci jigéen rek dafa war a sangu ñaar yaa ngi ca kanam insha allah ca fukkeelu faslu ba ak fukkeelu faslu ba ak benn nga ne ko waaw kon nag ginnaaw ñaar yooyu da nga ma koo dig te nee nga janab mam da nga ma ko leeral tey maa ngi déglu kon lan mooy al janabatu mooy jërëjëf fal janabatu janaba xismaani ñaari xaaj la nga ne ko waaw baatu janaba lu muy tekki mu ne janab baat bi day dafa am jokkaloo ak ijtanaba wala ijtinaab ñu koy wax sori léeg-léeg yàlla yi tere dara naan fajtani bu sori leen loolu ku mu dal ku ne dafa am ñu lay wax nang ko sori yooya ñu lay wax nang ko sori moo tax ñu tuddee ko moom sorikat kuy soreel nit ki ay mbir bokk na ca yooya faslu juróom-ñetteel insha allah sori dugg jàkka sori jàng alquran ak yu demee ni ko yooyu dina ci dikk ca faslu boobu muy faslu bi gën a gàtt ci téere bi nga ne ko waaw kon janaba mooy nga ne mooy lan mu ne xismaani ñaari xaaj la ahaduhuma benn ci ñoom ñaar xurujul mani yi mooy génnuk mani yi génnuk mani yi mooy xaaj bu njëkk bi ci janaba saa bu mani yu génnee ci nit rek nit ka yore na janaba xurujul mani yi génnuk mani yu mani yu am ndox la moo xam ne suñu borom tabaraka wa taala daf ciy bind liir daf ciy bind liir maanaam gone ndox moomu bu doomu aadama lekkee ba lekk gi am ci moom ab diir dafa am lu ciy soppiku tabarkàlla biir bi segg ko def ko xorom jox ko cër yi ci li ñuy soxla ci xorom am lu ca biir bay segg def ko sucre la ca nekk sucre jox ko yaram wi ndax daa soxla sucre segg ca la ca nekk ndox jox ko yaram wi ndax daa soxla ndox plus ndox mi ngay naan waaye ci segg-segg yooya la cay segg ba segg ci lu ñu tuddee deret jox ko yaram wi ndax yaram wi daa soxla deret deret jooju nag ci la yàlla tabaraka wa taala di seggaat nag génn ca meneen ndox mu ñu tuddee almaniyu li nga lekk couleur bu mën a am bu ko machine bi sa biir bi jàppee daf koy defar mu xonq mu nekk deret biir deret jooju nag mu def ci ay matières yu bare bare bari bari waaye ci biir matière yooyu ci la suñu borom tabaraka wa taala di génn nag meneen ndox nag mu am couleur bu weex tàll mu ber ko ci sa biir yaram wi rek ci benn roq denc ko foofu matière ya nekkoon ca yàpp ca lekk ga ànd ñëw ca deret ja dañuy ànd ñëw ci ndox moomu suñu borom tabaraka wa taala segg ca bind ca doomu aadama moo tax muy wax naan ñu ngi bind doomu aadama min turaabin ci suuf ndax cosaanu deret ji ak lekk la cosaanu lekk ga suuf la tabarkalla man nii moo mën a kum génn ci yow rek da ngay daal di wax ne man ab yor naa janaba moo xam góor la moo xam jigéen la nga ne ko nag ah waaw nu mën a génn rek mu ne déedéet bi lazzatin mu'tada bu fekkee bànneex la bu ñu miin moo ko génne bi lazzatin ci bànneex mu'tadatin bu ñu miin maanaam doomu aadama man yow mën naa génn te lazza bànneex du ko génne ndax mën naa am buñ ko tuuroon tey ndox mu tàng fekk góor mu toog nga ne ko cay ndox mu